yi xëy ne nañ soxlawuñu ku leen lebali ko bari war ko faa taxawal ngir pôle urbain ba tu benn te du benn ndàmpaay boo xamante ne rek teg nañu ko seen loxo ñu bëgg nag ñu ñëw gannaaw dañu leen a tooñ dàmp leen ca na mu gën a gaawee njàqare ca Guet Ndar rawatina ca waajuru ndongo ya nekkoon ca lekkool l'école Abdoulaye Mbengue Xali géej ga kon moom moo daal di yàq l'école boobee ba ñu toxal leen ca Cheikhou Touré foofee maire ba Mansour Faye ma ngay sàkku ci nguur gi ca na mu gën xalaat pexe mu ne ña nga koy def fa eh, ngir gaañ yi dugg si indil leen i koppar Fatou moo ñu fa doxantul laaj xale yi la ñu bëgg ca kanam tuuti dinañ ci dikk ak yéen ponk yaa nga ko anis tuuti ko ci lu rafet noonu bi ak télévision Futurs Médias retraité yi xëy tey ji kon sol marakis ak musóor daal di wàcc ci euh, mbedd mi mag terewu leen ñu dox diggante allée centenaire jàpp kon euh, place euh, du du Ndiaye Rose foofee nag nguur gi la ñu bëggoon mu dégg leen seen i pension nee na nañu ko yokk téeméer boo ca jël na ca teg xaaj wa 10 moom la nguur gi wax jamono yi ànduñu ci naqaru nañuy précité na muy doxalee ak ñoom Nitalik Maymouna Ndiaye Modou Diop bu ñu laal suñu pension benn yoon suñu pension nañ ko tegee nële lii bokk na ci kàddu yi nga xam ni retraité yi ñu ngi koy jëbal tey ji ci suba ñu dox doxu ñaxtu li ñu bëgg nag mooy ñu yokkal leen bu baax boobu le ndax nee nañu téeméer boo jël fukk ya néew na lool. cette théorie théoricienne là bi ñuy wax premier bi deuxième ça ne nous engage ñaari weer ñaari weer la ñu fay benn weer ñu fay la benn weer. donc lii ñu fay décembre ñoo ko moom parce que ñaari weer lañu ñu toog ñu jël beneen pàcc bi nag ne avance la du sax avance parce que dañu bind ci bulletin de salaire il na nous respecte pas moo dañ ñu fonkul bind ci avant tabaski ñenn ñi avant pension loolu mooy lan cinquante pour cent baaxul sax mais dañuy dañuy dañuy dañuy jàppandi ci loolu continuer xeex di wax ak ñoom joxoon loolu mën Euh, sàq mee gënum sàq doxul ñaxtu bi ñu tàmbalee ko rond point obélisque wutali place Doudou Ndiaye Rose ñoom ñëpp bokk li ñu bëgg li IPRES mu ne toog ñaari at di fay régulièrement les pensions toutes les pensions kooku mooy benn réserve ils en ont quatre ils en ont quatre li ñu wax ne mënuñu fay dañu mënuñu fay euh, mënuñu jël euh, bimestre bi fay ko mensuellement du dëgg si suñu bulletin yi dañu gis ne ah dañu lebal benn weer suñu pension dañ ko xàcc en deux lebal ñu benn weer mais nit ci boo koy lebal da nga koy wax. ci xeex bi ñu ngi ci am jàppalewu ñi nga xam ni seen boroom kër dafa dëddu li ñuy laaj nag tey jii mooy njiitu réew mi daal ciy gën a xaar tànk tubéyam. ñii am nañu 2000 francs ñii am nañu 3000 francs 4000 francs mooy ne 10 000 francs de pension par bimestre loolu mooy dee nañ ba pare dañuy fekk suñu jëkkër yi suñu jëkkër yi avant que ñuy dee. stress moo leen rey dee nañu ñun tamit ñoo ciy topp ñu bu ñu deewee suñu njaboot gi fu ñu jëm ak maigre pension yi ñu am ñu nar koo daggati ku ci am 5000 francs nga war a fay lu yaa joxe añ ak reer foo jëm. moom moom la fi yàlla teg moom la ñu ñuy la ñuy jooy suñu mbir ñun mag la ñu ko fa yàlla teg dañuy ñëw di la jooy suñu suñu mbir ci moom buñ ñu bëggee xàllal nag créer barrière ba du ñu du ñu si foofu loolu du wax ji nañu honnête sincère ñu toog wax. ñoom retraité yi nee nañu duñu bàyyi benn yoon li ñu bëgg rek mooy dooleel xeex bi ndax kat bu ñu jógee ci marche bi am na yeneen tëralin yu ñu nar a nas ñeneen ñoo xamante ni it euh, namu ñoo bàyyi mooy ñi nga xamante ne ñoo dëkkee fële kon ca Diamniadio village ya ko war nee nañ ak pôle urbain ba ñu fa bëgg a def jamono yi teg nañu loxo euh, ci seen suuf la leen ca naqari nag moo di dañu leen a dàmpul benn yoon euh, ñu bëgg nag jot ci seen indemnisation yooyu di ca wax ak kilifa yi gannaaw dañu leen a tooñ nañu ñëw régler situation bi Ousseynou Diop Bira Diagne lii di askan wa yeewoo ca Déni Malick Guèye Déni Babacar Diop Déni Demba Koddu ak lii di Sébi Ponti nag dañoo wàcc ci mbedd mi ngir fësal seen naqar jëm ci seen suuf yi nga xam ne nii jàpp nañ ne lii di pôle urbain bi moo ko jëm te amul benn ndàmpaay bu ñu teg seen loxo. ay nit mënuñoo dëkk ci gox plus de deux cents am ay suuf suuf soosu sunu jigéen ñu jàmbaar yi jigéen yi nekk fii ay jigéen yu jàmbaar ñoo fi nekk at mu jot dañuy bay fii. mbay ma ñu bayoon yeggul sax dugal nañ ci machine yàq ko jigéen ñooñu tey mbay moomu bu amatul fu ñu jëm ay jàmbaar lañu yu doon bay fii ñu fekk leen fi noot leen encadré par la gendarmerie noot leen dugg seen i tool yàq ko lan lañ fi bëgg a def ay ay ay ay ay immeuble ay terrain de golf cinquante hectares terrain de golf loolu bu fekkee ne mooy émergence bi Macky Sall mu ñu andil émersance boobu bëgguñu ko. kon askan waxan wi nag ne. saisir nañ ci ñii di autorité yi waaye ba léegi kenn yeyul yàbbi ci mbir mu ni mel. fi ñu commencé mooy autoroute bi daf ñu tëj autoroute bi daf ñu tëj ñu yóbbul ñu fa as pon pont boo xamante ne bii ndox dong fa yeeyoo pour jaar. foofu la ñu commencé jóge fa bët Sénégal autorité yi pàccoo nañ ko. université du futur africain lay Wade ay sunuy tool yi bàyyi la sunuy tool yi maam la ñu nga dem def ko fa dërëm jotuñu ko fa. tout à péage indemnisation yi. projet IMCA bu projet dëkk bi plus de soixante dix millions mu ngi apix si tëdd ñu bañ ñu ko jox. li ñu jël fii si hectare ëpp na mat na deux cent parce que rien que terrain de golf bi ñu fi wax cent cinquante hectares la. nanu président de la république mu ngi nii. ampliation ministère yeeg yëpp mu ngi fii en bonne et forme dinaa leen ci jox copie. li mu leen jaral pour ñu jël sunuy suuf. jaral nanu lu ñu day pour nu conserver sunuy suuf. gannaaw nag seen doxum ñaxtu bi wow askan bi nga xam ne ni nag daje nañ ci ab collectif nee nañ dinañ wéyal combat bi ba li de seen yelleef ak seen àq ñu jox leen ko. seenu ci am kon moo ñu demaloon fële ca jëm ñaa duñu sori bor yooyee ndax dañuy taxaw ca mbaaw foofee euh, maire ba la ñenn ñi kon joxoñ baaraam ak ay cantines yu ñu ni kon def ko fa euh, bëgg taxawal moom la mu tontu moo di dafa am ñu nekk euh, ci ginnaaw gone yooyee jeune catholique yi kon di leen monter te sax xëy na coow la jiitu na lii lépp waaye terewut préfet ndegam wax na leneen nee na liggéey bi dafay wéy foofee dañu ci ànd ak Pafara ñi Ngas Malick Diop gannaaw doxu ñaxtu ndawu catholique ya nekk ca mbaaw ngir ñu dakkal nag tabax yi ñuy def foofu wàllu cantine seen wetu paroisse meeru dëkk ba nag moom mu ngi joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moo nekk abbé ba ne nag ab coow bu yàgg bu amoon seen diggante la. ñun am amuñu problème avec les chrétiens le problème bi ñu am ñu ngi ko am avec responsable donc paroisse bi. parce que dafa bëggoon ci biti lépp ma jox ko ñu def ko parking privé pour ñoom te foofu la kalandoo mbaaw yi di mu dem ma bañ loolu mu def fa ay garab ma ne ko na garab yi deñ ndax fii ay oto lañ fi war a gaare mu bañ loolu moo indi suñu problème boobu wax léegi war na mat ñaari at loolu la ma meree ba lu ma mënti def ci commune bi dina jëkk xëpp si suuf. naam sax préfet génne na ab arrêté ne na ñu dakkal yooyu la liggéey maire ba fas yéene wu ci deltu ginnaaw. jël nañu ñetti hectare ak genn wàll clôturé ko ñoom ñoo ko moom te li ñu si occupé gul ñoom genn wàll hectare la li fa des yëpp mënuñu ko occupé. mais kooku tey su fekkente ni loolu yëpp mu ko koy occupé ne ci biti dara du wër sama miir dara du jege sama miir loolu aussi nañ xool ne mënta ne état bi moo war a dooleel maire yi mais bu ñu leen fragiliser donc bu fekkee des choses bu ñu jël jege benn miir kooku jëkk manifester ñu ne du fi am su boobaa aussi benn maire du mën a réaliser dara te cantine yooyu du marché ndax ñi ko war a occupé ñu bëgg ay bureau waaye xel mën na cee dal ndax imaam yeeg lu mbaaw yi nee nañ dinañ jox jàmm ci diggante ñaari boor yi. léegi nag dañoo créer comité boo xam ne incha allah dinañ ko comité waxta créer waxtaan ak sages yi nga xam ne ñoo nekk mbaaw moo xam chef du yi la. moo xam élimaan yi la moo xam délégué de quartier yi la ñu tànn fu ne une partie moo xam itam ci parti chrétien bi la ñu dem médiation ñu toog waxtaan. laataa dox jàmm boobu nag ñaari parti ku ci ne taxaw si sa wet ne li nga bëgg moom dina am atemeer bi jàpp ne li nu mel moo xew fële ci diwaanu Ndar Géej ba ñu toj fay jumaa te kenn waxul. ca Djilor Saloum foofee askan wala muy laaj moo di seen maire Blé ña nga ca Fatick ndax yore nu bon eh, la ko jiñ ba daal la bëgg nañu délégation spéciale waaye it eh, ñu yebal fa ñoo xamante ni dañuy auditer mairie ba na muy doxee ñu ànd ci ak eh, Marie Bernadette Sène Amadou Ba ndax askan wa ña nga woon ca mbedd ma. nu Djilor xejootuñu ak seeni maire dañoo ràngoo ay morso yu xonq wàcc ci mbedd mi ngir ñaawlu doxinu mairie bi. li waral tey ñu initier lii lenn mooy que Djilor doxul bu ngeen xoolee yoonu Sokone bii ñu ngi koy defar fu ñuy jëlee latérite bi dëkk bu ñuy wax kër Wali Penda bu ngeen ko xoolee ñu ngi utiliser carrière bi n'importe quoi kenn xamul nañ ko utiliser population bi xamul ci dara yàq nañu yoon bi te ñu carrière sunguf la ñuy buub di ko def ci tali bi te loolu du yoon loolu bokk na ci li ñuy ñaxtu bu loolu weese ñu dem ci la gestion maintenant de la mairie loolu il faut ñu wax ci parce que ñun dañ leen woolu fal leen ñu nekkal ñu fa donc loolu bu amee tey bu ñu fa nekkee di xuloo be di xeex vraiment foofu liggéey mënatu fa am. askan wi nag ñu ngi ñaan nguur gi mu audité te mu defal leen délégation spéciale seen commune bi. nous disons euh, président de la république tey ci ginnaawam lañ nekk ñun ñoo ko fal te bëgg nañ ko gunge gungewaat avec cette avec ce maire là duñ ko mën donc liñ koy wax. mooy que vraiment on en a marre sonu nañ ci monsieur le maire. donc xeex bi niñ ko waxee dañ koy tàmbali. lii premier pas bi la. dinañ dem ci ay xeex parce que ba mu jeex. bu demul duñ ba parce que vraiment avec lui du dem. doxum ñaxtu bi ñu ngi ko jeexalee ci màkkaanu sous préfecture ba foofu jël nañ ay këyit dëxañ ci seeni tawat te yot ko ndaw buur bu leen fa toogal. moom maire ba Lansana Sano nag euh, ni na tontu nee na ndaw ñuy xamuñu maire yi naka lañ koy euh, doxalee te la mu jàpp ni sax euh, moo leen déranger du lenn lu dul moom ci boppam la ñu xajotul ñu teewlu tontoom ci micro Marie Bernadette Sène. askan bi balaa ngay laaj li la état di defal laajal sa bopp li nga mën li nga ko mën a defal problème bi may njëkkee waa Djilor du ñu fay taxe amul kenn ku ciy fay taxe. ñay fay mooy ñoo xam ne dañoo jóge feneen ñëw fii ñoo ñooy fay dañu fay taxe projet bu gën a mag Djilor lañ ko concentré piste Djilor Felaat piste Djilor euh, euh, euh, Sokone piste Djilor Ndiassane Saloum forage yi magasin de stockage yooyu yëpp canal canal vacuation des eaux pluviales inondation Djilor dootu ko amati. li ñu investir à Djilor ci département bi mun ngeen ko wor bariwul ñu ko investir en deux mille quinze on a investir plus de un milliard de francs fa waaye ren lay changé xëy na loolu moo tax ñuy ñuy ñuy daw ak daanu lay changé ren mooy ku jëli sa fonds de dotation da ngay ñëw ci mairie bi nga teg ko ma woo conseil yépp ñu ñëw toog woo population ñu ñëw toog ñu seddale ko ci kanam nit ñi parce que chaque fois que boo joxee fond de dotation ñii dañuy am ñee duñu am en plus que duñ la defal bilan mais ñii dañuy am ñee duñu am Djilor rek dafa nekk euh, commune yi Djilor déedéet ñun suñ fi nekkee du ñoom de parce que ñi marche motuñ sax fanweeri nit pour ma wan leen ne Djilor bugguñu bugguñu dara avancé fii biir Djilor robinet yi nag wax dëgg yàlla lu bari tëj nañ ko euh, robinet xaalis laay wax waxuma <laughs> robinet dox donc euh, coow li foofu la. wax dëgg yàlla ñoo xam ne du ñu nangoo fay juuti commune bi fan lay jëlee xaalis bi muy jënd ay 30 millions transformateur mënu ko am. man sama bopp maay déranger Djilor moom maire ba Lansana Sano ma nga ko bu Djilor ñu taxaw Guet Ndar école Abdoulaye Khale Mbengue foofee nag euh, lañu ni daal géej ga moo ko yàq ba lu toll ci téeméeri gone ya fa daan jàngee toxal nañu leen l' école Cheikhou loole nag juru njaqare ci seen i waajur maire bu Ndar bëgg nguur gi ñëw taxaw ci ak beneen l'école bu ñu bëgg ñu defal leen ko Ousseynou Diop Habib sekk lañ fay fekk ji. école Abdoulaye Mbengue Xali lu ëpp juróomi téeméer ci ay ndong ñoo fay jànge école bi géej gi moo ko yàq daaneel mur bi salle de classe yi ñoom kenn waxatu ko lu ëpp at nag kenn jàngiwu fii mairie bu Ndar yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguur gi ngir ñu mën a jàppale doomu Guet-Ndar yi laatay xale yi di am jafe-jafe ngir mën a wéyal seen njàng. école Abdoulaye Mbengue Xali mi nga xam ni kenn jàngatu fa bâtiment yi daanu nañu te dañ leen war a defar euh, loolu nag dañuy lancer appel ci ministère ministre de l'éducation ni ko lii urgence la pour que ab école bi nga xam ne mooy Ablaye Mbengue Xali classe yi mën laan defaraat élèves yi mën a jàng parce que ñu fi doon jàng yëpp dañ leen dugal ci yeneen école bu leen dugal ci yeneen école yi soit école yi dañuy fees te du ñu mën jël yëpp xëy na genn wàll gi mooy jàng yeneen genn wàll gi ñu ngi ci biti daal maanaam di taxawalu te loolu baaxul ci dëkk bu ñu ko tëjee parce que bâtiment yi dañoo daanu donc loolu maanaam day nekk gàlloon gàllankoor ci éducation doomu ndar yi loolu nag bëgg nañ ci président taxaw ci bu baax ànd ci ak ministère de l'éducation nationale ànd ci ak premier ministre ñu defar ñu lu mu gënee gaaw ay table ay ay ay ay ay ay salle de classe ci guet benn école dong moo fi nekk jamono jile di wéyal njàng mi ñoom xale yi sax dañuy alterne ñi bu ñu jàngi suba ña ci des ngoon ci la ñuy jàng guet doon quartier boo xamante ni ñaar fukki junni ak juróom ci ay xalima yàlla ñoo fi yeewoo ci jafe-jafe yi amoon ci diggante way takkadeer yi ak ñeneen ñi nga xamante ñu nekk ci guet ci fukki fan ak ñaar ci novembre ay ordinateur yu bare lañ ko yóbbu woon tax nag maire bi del ci waat ci gox bi ngir mën a jàppale école Abdoulaye Mbengue Xaali ñu ngi ñëw fii ci école Cheikh Touré pour indi fii ay matériel informatique Ah, mën a jàppale école bi parce que ñëpp xam nañ ni amoon na fi ay événements yoo xam ni peut-être maanaam ñu ngi koy ñaaw ñu ngi ko doon ñaawlu waaye léegi passé na événement yooyu indoon na ay yàqu-yàqu ci école bi. Mansour Faye ci nemmeeku bu mu doon amal ci diwaanu Gendar xamle na ni liggéey yi nga xamante ni moom la ñu war a sumb ci booru géej gi ak booru dex gi ci atum 2017 lañ koy tàmbali. biral na ni njiitu réew mi mooy lancé liggéey yi nuy amal ci diwaanu Ndar géej. diggante maaman yi ak foo tourné gis fa cabinet médical loolee docteur yi bëgg nañu nag nguur gi taxaw ci euh, mu daal di euh, dakk xam xamle ko ci cim ndaje ndax jàpp nañu ni lii du jëmal am kacc am pàcc kanam docteur Joseph Mendy mooy vice président ordre national des médecins àdduna ci ci micro Fatou Kiné Dem ñoo xam ne ñuy jógee ci réew ñoo xam ne ñoo ñu wër boo xam ne foofu dañu teg ay loi yoo xam ne yoo xam ne yu yu yu yu loi yoo xam ne yu dëgër comme ñooñu mënuñu continuer lu ñuy def foofu te maanaam lu ñuy def baaxul mënuñu faj mënuñu dara ñoom dañuy ñëw laxatu fii Sénégal pour rey population sénégalaise yi en plus de cela loolu doyul ñu gis encore ñuy jóge ci yeneen réew tubaab di àndee machine yoo xam ne ñu ne boo tegee sa loxo rek ñëpp génn loolu ay naxe mbaay lañ xaalis la wut ci ci ginnaaw ci ci ci ci alalu sénégalais yi maa ngi lancé appel di ne sénégalais bu leen dem ci yooyu yooyu yëpp ay naxe mbaay du dëgg amul benn machine boo xam ne boo si tegee mu wax la yëpp lu xew ci sa biiru yaram loolu musul am amul te même si seen dëkk amul parce que musuñu gis fu ñu defee recherche ba publier yooyu neneen loo xamante ni bëgg nañu ko ci taxaw exercice illégal de la médecine loola tax ordre bi siiwal na euh, turuk docteur yi nga xamante ni kon euh, bootu na ci ñoom ma euh, ñu gis ni nag ñenn ñi duñu wàccook charte yi ba tax na yenn saa dootuñu xamati kan mooy kan ñu bëgg ministère de la santé yoon police ak IPM yi lëkkaloo ngir yëf yi leeraat Fatou Kiné Dem junni ak juróom-ñaari médecin bindu ci ordre national des médecins du Sénégal ci atum 2016 kuréel gi nag daal di fesal euh, tableau bi nga xamante ne nii moom moo ëmb ñi yëngu ci kër docteur di ay fajkat yu ci am sañ-sañ fii ci Sénégal ngir bokk ci nag faw nga sàmmonteeg ñett yi. bi ci njëkk mooy nga am nationalité sénégalaise beneen bi nga am diplôme doctorat ci wàllu médecine ñetteel bi nag mooy dangaa war a bindu ci ordre national des médecins du Sénégal. gannaaw loolee kuréel gi ŋànk ñeenti mbir yoo xamante ni mi ngi ci dox. ngir wérgu yaram gu gën a ñoŋ fii ci Sénégal. képp docteur bu nekk ci Sénégal muy respecter lu ñuy wax charte bu ñuy wax code de déontologie ñaare bi mooy maanaam ñuy waxatoo di wàccoo xalaat ak gouvernement du Sénégal plus particulièrement ministère de la santé pour que ñu mën a saafara njàngoro population Sénégal parce que ordre ñu xarañ ci médecine nekk ñoo fi nekk te ñoom tam am nañu sañ-sañ. pour wax ci mbirum faj mbirum politique de santé sénégalaise. ñu nemmeeku fii ci Sénégal ñu bari ñi ngi yëngu ci fajum docteur te amuñu ci sañ-sañ defkatu njombe yooye bariwul liñ leen di yóbbu ci yoon te bu amee itam daan yi faral di tegu ci seen dodd du ko tax a diis lool. ba léegi euh, wax dëgg yàlla gis gisaguñu daanu yu xam ne yu diis boo xam ne day décourager nit ñi moo tax ñu ngi lancer appel aussi ministre de la justice. mu gën a dëgëral procureur yi pour ak juge yi boo xam ne ku ku jalgati yoon ñu daane ko daan boo xam ne day servir d'exemple. ak table bi nag kuréel gi ëmb médecins yi ci Sénégal di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy docteurs yi ñu gën a bindu ci kuréel gi ndax loole bokk na ci luy yëkkati seen kuréel gi yëkkati seen liggéey tamit fii ci Sénégal. beneen secteur bu ñu bëgg réglementé moo di wàllug euh, ginaar kon ca yarwa ba ci niñ koy consommé loolaa tax nag ña ci yëngu am l'assemblée générale nettali Aminata Mbaxe saw atum 2015 Sénégal produire na lu toll ci ñaari téeméer ak fukki ñeenti tonnes euh, ci ndawal téeméer boo jël nag fanweer ak juróom-ñett ci ndawal yooyu le mu ngi jóge ci ay ginaar ak yeneen. tey président wax na ko c'est que jël li nga xam ni Sénégal. ñaari téeméer ak fukk ak ñeenti tonnes yàpp nanu produire en deux mille quinze Sénégal yi lekk trente huit pour cent yi donc li ci ëpp ci yàpp ganaar la. ñi bëri ci yëngatu ci mbir moomulee ay privé lañu. looloo waral sax nguurub Sénégal jël ay matuwaay ngir gën leen a jàppale. fii ba deux mille vingt deux ginaar du joge bitim réew dugg si fii loolu li mu indi mooy nit ñi gën nañu gëm aviculture gën ci investir gën ko yaatal ba tey egg nañu ci lu ñuy wax autosuffisance alimentaire mooy ne tey ganaar yi ñu produire au Sénégal nen yi ñu produire au Sénégal doy na li nga xam ne moom la ñu soxla. bu weesoo matuwaay yooyu tamit bëgg nañu taxawal ab cadre juridique maanaam ay loi yoo xam ni ñooy régir yarum ganaar. ci Sénégal. duñu war a def loi ba nga xam ni euh, kuy def aviculture da nga ko def ci ay normes yi nga xam ni dooloo keneen ki loolu nag liggéey bu yaatu la liggéey bi nga xam ni liggéey xam-xam la donc nit di jigi ci te incha allah defe naa ni du yàgg tuuti déjà pour que ñu mën taxawal loi bi nga xam ni euh, dina mën kenn ku nekk ñun la lii ngay def. waroo def lii soo ko defee lii mooy dal sa kaw. interprofession avicole du Sénégal taxawal nañ ko léegi mat na ñetti at assemblée générale bi ñuy amal fii ci ndakaaru nag dina tax ñu tabb bureau bu bees bureau boobu nag ñetti at a ngi nii kii di Babacar Ngom moo ko jiite woon. gendarmerie yi ñoom it daan nañuy profité tey ji ci bis bi euh, wax 2016 euh, nañu ko dundee euh, la nga xamante ni kon def nañ ko ci wàllu recrutement waaye it pexe ñu teg ngir xeex xeeti caay-caay ak délinquance yu mujj yi ñu doon présenté seen niveau ca caserne Samba Samba Diéry Diallo Mamadou Fall. Monsieur les officiers généraux, officiers, sous-officiers gradés gendarmes et gendarmes auxiliaires, au seuil de cette nouvelle année je tiens à vous féliciter chaleureusement. di jeex nekk at moo xamante ni lépp lu ñu jongoon daan nañ ko 2017 nekk at mi tijjee kook yeneen i mbébét gendarmerie tey taxaw temm ngir aar suñu kaaraange. le champ d'application de la gendarmerie n'a pas cessé de s'étendre ci li ñuy couvrir yokku ci at yu mujj gendarmerie tey ji taxaw ngir nag assurer lépp luy kaaraange yu concitoyens yi war soppi nag doxalin ci wàllu kon xeetu délinquance yi xew léegi ñu war a gën a ñoŋal suñuy jumtukaay. appel de nouveaux procédés d'exécution nekk at moo xamante ni yenn ci action yu doon namm amal nañ ko waaye itam amal ay recrutement yu am solo. des actions concrètes ont été menées. ñu amal ay action yu am solo ci wàllu mobilité wàllu tabax defaraat li nga xam te ne moo di suñuy infrastructure 2016 ba tey fukk ak juróomi officier ñu recruter leen ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukki élèves gendarme ñu jël leen ci gendarmerie amalaat taxawaay yu am solo lu ci mel ni kon tas ay réseau bande armée réseau trafic de drogue ak li nga xamte ni ci wàllu xaalis bu bon. par la gendarmerie a donné ci occasion présentation de vœux bu gendarmerie gendarme yi seen bopp ñoom tamit sargal téeméer rek ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi dem à la ren ba noppi sargal itam képp ku jàppoon ci rayonnement bu gendarmerie. diggante gone yi seen diggante ak nowel kado yi ñu ciy séntu jamono ji nga xamante ni waajur yu ci bari ñu ngi ci ay jafe-jafe kon ngir jotale ñaari cat yi day miti ci ñoom ba tax na ñenn ñi gis ni nekkatul priorité loolee dugg nañu ci marché bi xool fan la toll Fatidia. monsieur Olenga ab doomu Cameroun la bu nekk fee ci Richard di fa daan dooleem lu ëpp fukki at a ngi nii jamonoy feet la ñu nekk mu bàyyeekoo foofee ci Richard Toll ñëw fii ci Ndakaaru. yore ab listam bëgg a jënd ay cadeau yu bëri. fii la maa ngi ndakaaru ndax samay doom laay wutal ay yére wutaale tamit ndawal ndaxte li may waajal moo di ngir nag togg ceebu yàpp bu saf. pour faire un bon ceebu yàpp. et les cadeaux là jënd naa itam ab euh, ps ngir sama doom ju góor benn robe ngir sama doom ju jigéen itam sama soxna nag ca teer balaa dem fàttali ko lu rafet. lancer une euh, un ensemble. ngir nag matale lu ni mel nee na daa am ay feem yi boppam te feem yooye bokk na ci organisation bu dal. fête bi nag organisation bu mat sëkk la laaj ndaxte faw ngay dajale ko par laata muy ñëw ngir bu ñëwee nga bégal say njaboot ndax xam ñu gone yi li ñu bëgg. fii ci centre ville bu Ndakaaru clients yi bari wuñ ci yenn boor yi. boutique bi nga xam ne nag wàllu électronique ak électroménager la yëngu ñoom dañoo mujj sax fay ab animateur ngir mu xumbal mais feetu sant yàlla ndax ku ne xam ne réew mi fii mu toll tembe dégg nga maam da métti na waaye nag sant yàlla gémmiñ gu yàlla xar def na ci tàngalu boromam. non fii xaru nu mat fii contrat la boo xam ne damay liggéey ak ñoom chaque année ñoom laay liggéeyal. dafa mel ni bu daaw bi moo tare nag bu ren mais daal fii daal macha allah moom ñoo ngi jaay ñoo ngi sant bu baax a baax animation baa ngi ci biti client yaa ngi dugg et tout sentir nañ ko mais li ñu gën a sentir ci produit yi ñuy jaay mooy euh, tablettu xale yi parce que parents yi ñoo ngi jëndal seen doom yi ay mm-hmm. mais tamit télé yaa ngi jar téléphone yaa ngi jar mais daal xale yi daal lañ ci gën a sentir que seen parents yi ñoo leen toppatoo seen fulay bopp la ñu bëgg waaye jurit nañ ko def dafa mel ni nag dañoo déyante sax benn baat koo ci taseel mu ne la tablette laa bëgg lan ngay doyee tablette. may jouer. lan ngay jouer. tampon tablette. tablette lan ngay doyee tablette. je sais lan ngay jouer. man. Hmm. tamporeur. ñu mën a def nag ay euh, waxtu ci seen tablette yooyee gërëm ko Faty Dieng jaajëfal leen yéen ñi ñu àndaloon 19h30 ba léegi rédaction bi incha allah euh, dana dellu si 20 bu boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon ak euh, Sara Cissé jërë ngeen jëf.